moom Cheikh Modou Basir ak seen rakki bopp yi ak Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xamante ne mooy jiite njabootu Cheikh Abdoul Aziz mi ñu tuddee bés bi ak seen rakki bopp yi nga xamante ne bi ñoo fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw di siyaare yi bokki taalibe yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk ñu ngi lay jox gëdd gi la suñu borom defal ak cër bi nga am ci Cheikhul Khadim di siyaare soxna yi kilifa yi jël euh, nuyoo bi teg ci loxo yi ñu mag ci soxna yi ngir ñu leen ñu ko ci seeni rakk ak seen bokki bi bu loolu weesoo sëriñ Baye Gallas jërëjëf jërëjëfati ndax mag ñi dañuy wax ne ku defoon kuy doog a def jërëjëf lañ lay wax waaye ku def defati jërëjëfati lañ lay wax kon jërëjëfati ci bisu Cheikh Maodul Fadal bii ñu baaxoo def te di ko ànd ak yow suñu borom dimbale ñu fekk ko daaw am na ñu ko fekkiwut yàlla leen yàlla defal tawféex te fekkoon nañ ko daaw ñun ñi ko fekkee woon daaw fekke ko ren ñoo ngi sant yàlla bu baax tey ñaan suñu borom dimbale ñu bañ fekke ko déwén. bu loolu weesoo mbooleem ko fi teew góor ak jigéen mag ndaw ñu ngi lay sant ci turu Afat moo Maodul Fadal bi nga xam ne kenn ci ñun moo woote muy Serigne Fallou di Serigne Baye sëriñ Alaaji Ndiaye sëriñ Saaliw ñu ngi leen di nuyu ak sëriñ naa mi fi doon jàng ak sëriñ Modum sëriñ Malick Sall mi fi doon jàng ak ñi ànd ak sëriñ Modum sëriñ euh, Cheikh Oumy ñi nga xam te ne bi ñoom ñooy at en fait Cheikh Modou yi nga xam ne ñoo taawu liggéey bi di sant bu baax di gërëm euh, ci waxtaanu sëriñ Alaaji Ndiaye wi nga xam te ne bi mu ngi doon def ci Cheikh Modou Fadal ñu taatan ci taatan yu rëy rëy rëy yoo xamante ne bii ñu ngi ñaan jariñu ci ba déwén di ñaan képp ku fi teewit nga bokk ci ñi ciy jariñu ma dégg mu wax am solo ci Cheikh bu Fadal ci ñooñu nga xamante ne bii ñoo doon toppatoo mbalit ngir bëgg koo sànni man mii de li may ñàkk ñàkk ñàkk solo 1983 Cheikh Abdoul Fattah maa ngi koy ñaanal. yàlla na ko suñu borom defal dolli tawféex ak xéewal defal ko gudd fan ndax dafa ma tànn jox ma Cheikh Cheikh Saalix fan yu néew ñu nekk njaareem ginnaaw tisbaar ma fekk ko buub ba ba ba teg mbalit mi ci warandaay bi ma ñëw yëkkati mbalit ma def ko ci sama mbubb bëgg koo sànni ji ndekete Serigne ngi toog ci campagne ci sama ginnaaw te gisuma ko bi ma siggee bay dem rek mu joor ma waaw góore sëriñ xaadim yow di murid dëgg nga wallaay na si loola la ma ko may mooy mbalit ak nangu ma fàttaliku Cheikh Abdou Fatah mii yàggul dara dafa julli ba noppi am lu tax ci yéreem mu jël ko woo ma ma ñëw fi doon jullee mu ne su ma ko sànnee nii mu wëti jumaa ji ci ku baax ki te su ma ko sànnee nii mu dem ci maam jaara te mu bëgguma koo sànni nii bëgguma ko sànni nii am may ma sànni ko ci sama biir poos rek mu réer ci kon la mu la nga doon wax ci Cheikh Modou Fadal ci ku baax ka Cheikh Modou Fadal mii maanaam fay na fay na fay na wax ja ndax koo xam te ne bii taq-taq nekk ci biir yére nga ne soo ko sànnee nii mu wuti jumaay ci ku baax te boo ko sànnee nii mu dem ci maam jaara kon mu ngi nii am alhamdulilahi rabbil alamin man ba mu ko joxee ma dugal ko ci sama poste xam naa buy génn kay kay photo koy génne waaye dootul génn kon ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax ci Cheikh Modou Fadal mii ñu borom booleel lépp lu baax a ngi daje ci moom kon képp koo xamante ne bi ñu ngi lay tudd tudd Serigne tubaa war ngaa nekk exemple képp koo xamante ne bi ñu ngi lay tudd tudd ak murit war ngaa nekk exemple yomb na lool amul moroom Serigne Touba amul morom naan ba man di dara tari naan Serigne Touba amul morom lu Serigne bi digle nga def ci neex la nga bàyyi ko fa naan Serigne Touba amul morom bala ngaa xam ne Serigne Touba amul morom da ngay nekk exemple ba ku la gis cig jub ci taalibi ci yaru ci teey ci tax tax ci yoonu siraatal mustaqim gëm yàlla du dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci ndigal bàyyi tere su boobaa koo ne Sëñ Tuubaa amul balañ la bala ngaa wax kenn Sëñ Tuubaa amul mu xam ne Sëñ Tuubaa amul morom te loolu it mooy dëgg wér kenn te loolu yi ñun euh, sëtu sëñ Fallou yi ci loolu lañ fas yéene nekk ci njiitul sëriñ Abdul Karim sëriñ Cheikh Abdul Karim ak sëriñ Baye Ndam Fall ak njabootu Cheikh Modou Fadel gi yëpp sëriñ Abdou Aziz nga xamante ne moom lañ tuddee bis bi man de miinuma ko lool waaye miin naa ko lool li tax ma miin ko mooy Cheikh moom Cheikh Fallou mii mu fi bàyyi ak Serigne Cheikh Mbacke mi mu fi bàyyi ak Serigne Cheikh Galas Kodo mi ñu fi bàyyi ku leen gis xam ne seen bàyyi ku baax la seen yoon nekku ci lenn li xew de moom bokku bokkuñ ci li xew ma nga xam ne man ca laa nekk ñoom nekkuñ ci boo solee mbubb mu rafet nga yaakaar ne yaa gën ñëpp ba doo teg fenn kenn boo yoree oto bu rafet nga yaakaar ne yaa gën ñëpp ba doo teg fenn kenn loolu dalu leen te loolu mi ngi ne xos ci dëkk bi man kenn moomu ma sëñ Tuubaa laa yaakaar ne ñëpp su ma gisee dëgg dinaa dëgg la su ma gisul dëgg dinaa dëgg képp koo xam te ne bi mer nga ci nag yàgg càkk salaamaaleykum wa rahmatullah <laughs>